kumpa bi ñeel ndax njiitu réew mi daana bokk ci élection présidentielle yi ñu la leeragul ba tey moom nag mu nar a àddu ci la ni wi ni non ba mu daan xamle ci discours à la nation ba mu nar a amal tey askan wi di ci yëy yàbbi rek ba xam waaw wala déet njiitu réew mi dina sampaat ndëndëm ci yile élection Mamadou Sy Albert di indi ab ñàngat ca li ñu mën a xaarandi bu njiitu réew mi dëggalee candidature am. waaw mën nañu wax ne tey ji ñëpp ñu ngi ci discours président bi mu nar def. léegi nag bu dee nee na candidat la loolu la APR xaar ci moom. loolu la Bennoo xaar ci moom ñi nga xam ne aussi ñu ngi koy votal depuis bi mu jëlee nguur ba tey ji loolu la ñu xaar ci président mu ne candidat. loolu dina mobiliser euh, APR dina mobilise Bennoo ak électeur bon wante loolu su fekkente ni candidat lu nar am mooy ko opposition bi yëpp daf koy xeex. donc loolu euh, moom moo nar a choisir nag ànd ak APR ak Bennoo jàkkaarloo ak opposition. bu ñu sukkandikoo ci analyste politique bi le président Macky Sall mën na bañ a sampaat ndëndëm ci élection yi ñu dëgmal wante loolee day rek indil ay jafe-jafe lii di APR ci candidat ba mu nar a ngir mu bokk ci bile élection. mën na aussi ne bokkatuma loolu aussi lu mën a am la ndaxte boo xoolee depuis deux ans trois ans ñëpp coowu candidature Macky Sall bon loolu euh, su dee nee na du participer dina rassurer opposition bi dina am conséquence. su dee bokkul APR ak Benno dinañu am jafe-jafe pour tànn kenn ki nga xam ne mën na nekk seen candidat loolu loolu moom jafe-jafe bu rëy la. ci diirum weer bi nga doon amal li di dialogue national ñu jàpp ni rek waxum sagon quinquennat saafara wuñ ko ci bi jotaay mu nekk ab jeexi jaaxa ba tey ci boppu askan wi président Macky Sall doon xamle ni rek dana jàkkaarloog askan wi ngir àddu ci lu ni mel ay waxtu rek des ci bile discours à la nation tey ci altine ji bët yëpp wutali. ca palais de la république ngir taataan kàddu njiitu réew mi